waaw kay asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di baalu ñëpp aax te di leen baal aax ñaan yàlla mu boole ñu jéggal macha allah sant yàlla alhamdulillah euh, ñu ngi ma transfer léegi euh, benn lien ak bu ànd benn audio audio bi nag téléchargé wu ma ko lien bi liñ ci bind rek moom laa gis mu mel ni mu ne waa ñu dafa wax na ci débat bi mu mel ni ñoom dañoo def euh, xam naa ab waxtaan wala lu mën a doon bind retour ci débat bi teg ci nay leer képp ku weddi sunna weddi nga alxuraan teg ci aw tur euh, xam nga gaa yi nii fim mu toll wax deug yàlla seen xel dalatul ndax alquran li borom bi waxon dag ne khul ja alhaq wa zahaqa albatil in albatil kana zahuqa waxal ne deug ñëw na di nax sayal neen ta neen dina doon lu nax say xam nga soo demee ci alxuraan ci barab yu bari yàlla dafa saxal li nga xam ne moom mooy téere bi da ko wane soo demee ci sootu sajjida mu wax ne alif lam mim tanzilul kitab la rayba fihi min rabbil alamin tanzilul kitaab waxul kitab wa sunna tanzilul kitab mu ne laa rayba fihi من رب العالمين نتكنا أم يقولون افتراه من ديرت بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون أما ينتو بدنكو وخناكو am téré bi wàcc na wala boog wàccug téere bi amul sikki ci ne ci borom bi la bàyyi koo wàccug téere bi amul sikk ci ne ci borom bi la bàyyikoo ko ñu teg ci ne wala boog dañ koo sos ñoom dañuy laaj loolu ndax ñoom dañuy wax ne dañ koo sos ndax ñoom dañuy wax ne dañ koo sos mu teg ci ne bal huwa alxaqu min li fi nekk mooy mooy dëgg gi bàyyi ko ci sa borom dëgg googu nag di téere boobu moo ñëw di naax saayal neen yam fi fekkoon te mu yàgg fi lool nag xam nga keroog ci débat boobu waa ji moom ci boppam sax bi muy wax ci wama arsalna min qablika min rasulin wala nabiin illa iza tamanna alxa shaytaanu fi umniyatihi moom ci boppam moo ko waxal boppam mu ne ñoom dañuy wax ne xadis yi mooy li ci shaytaane dugal te xadis yi yàgg na fi nangam nangam xeet yooyu xadis yi nekk gim fi nekk wala seen sunna soosa ngeen ni askana la yonent bi nekk gim fi nekk muy sos yi nga xam ne moom la nit ñi sos di ko dugal ci diine nekk gim fi nekk dafa am boroom xol yoo xam ne ñoom ñoo ko tax a jóg te ñoo xam ne ñoom dañ ca war a loroo maanaam fiir googa da leen a war a jàpp ñoom mooy comme ñiy taxaw nii di wax rek ngir wute téye ay nit ca loola ndax yàlla dafa xereñ ci ni muy jàngale noonu mu waxee ci surat 22 verset 52 53 54 ba 55 kenn ku ci ne mën na dem vérifier ko bi mu waxee ne wa ma arsalna min xablika min rasulin wala nabiin illaa iza tamanna alxa shaytaanu fi umniyatihi lan la ci yàlla teg fa yansaxu llahu ma yulxi shaytaan te lii kat yàlla dogal na depuis ay at depuis 2017 ñoo ngi koy wax ne liggéey bi ñuy def li ko tax a jóg mooy nasaxal li shaytaane dugal ci mbir yi mooy nasaxal li shaytaane dugal ci mbir yi te loolu yaakaar naa képp ku daan seetaan vidéo yo ca bu njëkk da ko ca fekk nasaxal li seytaane dugal ci mbir yi te loolu yàlla dogal na wax dëgg yàlla ñoo ngi koy def bu baax di wane référence yi nit ñi dem di ko xooli di ko gisal seen bopp ci wane ne nit ñi lañ ñu jàngaloon di ñoom lañ leen jottali woon muy lañ fi indi woon dara wu ko ak njàngalem yàlla di Islam, di wane preuve bi di indi ñoom wax ya ñuy wax di indi wax yi yàlla wax li yàlla wax di naax saayal ñoom lañ doon wax yàlla dogal nag nit ñu bari di ci yeewu nit ñu bari di ci jëriñu ba ci ay nit ñoo xam ne boromi xel lañ nekkoon ci seen kuréel yi yàlla dogal ñu di ci yeew bu baax a baax a baax a baax tax nag ñu ne dañuy ñëw di jéem a karkarloo seeni nit ñi seeni nit ñi nga xam ne seen xel yaa ngi yëngatu ndax seen xel yaa ngi tàmbali di xelaat ñu bëgg leen a karkarloo mu jaral leen léegi daanaka soo xoolee kat ni ñuy defee léegi ay xeetu waxtaan dafa mel ni moo ngi bëgg a jege di wax ci ñi nga xam ne dañuy dellu ci alxuraan dafa mel ni diire yi mu ngi jege nag li leen waa jooju waxoon jamono bee ne leen yéen ci yéen fi mu toll nii da ngeen nekk ci li ñuy wax sur la défensive ci ngeen nekk te moo wax dëgg yàlla ñun yéen du ngeen suñu cible ñun yéen du ngeen suñu cible. kem ni ma ko waxee wax naa ko sax loo xam ne publier nañ ko bu yàggul ñun suñu cible mooy képp koo xam ne dafa nekk ci diine bu wuuteeg islaam la mu nekk noonu mu koy tuddee islaam ñu wane ne kooku la mu nekk ak islaam dara boolewu ko suñu cible mooy képp ku bëgg xamal képp kuy wax nit ñi ne leen diine yi yàlla dafa am beneen delluwaay bu du téeréeb yàlla suñu cible ba tey it mooy koo xam ne sax day wax ne day dellu ci téereb yàlla waaye du yem fu ko yàlla yem loo ñëpp ci suñuy cible lañu bokk maanaam daal lépp loo xam ne seytaane dugal na ko ci mbir yi maanaam loolu mooy ñun li nga xam ne moom la ñuy nasaxal ak ku ci mën a nekk ak foo ca mën a nekkee moo tax dañuy wax ne ñun du wax ci personne yi ci principe yi la wax même su ngeen bàyyee xel man su may wax di ngeen bàyyi xel ne néew na lu may tudd turu ñi may waxal néew na waaw lu raar la may wax di tudd turu nit li waral su may wax du ma turu nit parce que xam man jëmmi nit ki taxumaa ndax dëmm ndax li wax jëmmi nit ki intéressé wu ma man principe yi ñoo ma intéressé te képp koo xam ne day dellu ci téereb yàlla nekk ci diine yàlla di islam di ab muslim dëgg-dëgg maanaam ay nit intéressé wuñ ko principe yi moo ñu intéressé nit ñi nag mën nañoo am seen stratégie yi ñuy doxee ak nit ñi ci wàllu manipulation ci wala ci genre communication yu biaisé yu ni ñu koy waxee maanaam yu biaisé ngir bëgg a téye nit ñi ca lañ nekkoon mën nañ ñëw nag di leen wax ne kuréel gii seen système de communication lii la ngir nit ñi mën koo xam mën cee yeewu mën koo bàyyi xel ndax yàlla dogal na affaire manipulation su demee bay am ci mbiru diine rek mooy yàlla taxatul te comme ñii di wax nii seen kuréel ñoom seen lépp presque ci manipulation la tegu. mais loolu jamono bi weesu na jamonoy dëgg ci lañ toll te xel yi li jamono di gën di dem day gën di ubbeeku li yàlla wax na dana nasaxal la ca seytaane def la ca seytaane sànni noona loolu ñun suñu liggéey ci loolu la ne te yàlla dogal na muslim yi ñu ci internet bi yàlla dogal na léegi ci àdduna bi yaatu na lool daanaka man 2018 laa découvrir na bari na ay nit ñu nekk ci àdduna bi di bàyyiloo xel nit ñi alxuraan di indi wax ya ñu daan jàngal démb di ko nattale ci alxuraan di wane na lii dara saxu ci di remonter sax histoire di ci indi ay détails yoo xam ne ñoom ña nga xam ne ñoo gëm loola munuñ ca dara ndax seeni propre téere ñoo ko indi waaye li ma doon wax sànq rek mooy li ko doon wax sax ci débat bi ne ñoom ñun dañuy wax ne maanaam seen xadis yi wala seen sunna soosa mooy li ci seytaane dugal parce que dafa am ay jamono ma am mu am koo xam ne sax wàcc na liggéey bu yàggul dafa am benn jamono ma mës ko déglu mi def benn xutba mooy ginnaaw bi ginnaaw bi dafa amoon ay jafe-jafe ba mu ca génnee mu ne li nga xamne mo meuna boole nit ñi moy alquran mu wax ko mu nek lu leer dem bam yag mu tek ca ak hadith mu nek nak lu problematique bi mako deglo ci bobu mané ki kii de xanaa li wax ni moko tay mom parce que so ñewé ne ak hadith suma ñewon né ko hadithu ñan lan la may tontu suma ñewon né ko hadithu ñan lan la may tontu ndax sénégalais yi faaw ñu yeewu ci benn mbir ci xeetu maanaam ci xeetu manipulation bu nit ñi di def danaa ci ñëwaat ci aaya yooyu waaye faaw ma wane manipulation yi parce que nit ki soo ñëwee ne ko maanaam alquran maanaam sunna moo koy leeral yow nga ne ko soo ne sunna moo koy leeral kon da ngaa bëgg saxal ne alquran leerul keroog am na ko ma toogaloon ci émission ba dana moom dane alxuraan leerul ma ne ko ma ne ko leerul mu ne leer na waaye ci kan la leer loolu ay lay la loolu lay la nit ki soo ne alxuraan am na lu koy leeral mooy kon alxuraan leerul te nit ki soo ne alxuraan leerul weddi nga yàlla ku dem ci tontu yañ doon def ñoom ñii seen kilifa yi en 2018 ñom ñep wax nañ leen ni ñi wedd yàlla moy seenu pligay yàlla su ne alquran tuddé yàlla su waxee tuddé téré bi alkitabul mubin ñom ñu ne téré bi lérul wedd nañ yàlla yàlla bañ ko ba wax yonentou bi nako wala khad anzalna ilayka ayatin bayyinatin wama yakfuru biha illa alfasikhun min surat 2 aya 99 yàlla wax yonent bi ne ko ci dëgg-dëgg wàccee nañ mu jëm ci yow ay aayu ci ay aayu leer te mën a loolu ñenn duñ ko weddi lu dul faasix yi ñuy jalgatikat yi mooy ñu nit ñi daan tuddee saay-saay si kon nit ñi suñuy wax saay-saay nañ xam ne képp ku weddi ne yàlla ay yu leer la wàcce mu jëm ci yonent bi kooku saay-saay la am képp ku wax na rek aaye yi am na leneen lu koy leeral ka koy wax nañu leer na ab saay-saay la loolu nag du suñu wax ñun yàllaa ko wax moom te yàlla kum na saay-saay nga doo sax bu ndaw bu mag nga te yemu ca yàlla bu waxee ne ñiy weddi ne yàlla ay aay yu leer la wàccee mu jëm ci yonent bi ñooñu ay jalgatikat lañ mooy li ñuy wax saay-saay ay saay-saay lañ yàlla da caa yemul yàlla da caa teg ne ci sóoratu sóoratu tawba da wax ne innal munafixiina humul faasixuun mu ne naafeq yi ñooy saay saay si naafeq yi ñooy saay saay si kon dëgg-dëgg ñey weddi yàlla kon ay aay yu leer la wàccee ci yonent bi kon ñooñu ay naafeq lañ kon nag buntu baa ngi ni ku waxati yàlla wàcceewul ku waxati na yàlla téeram leerut aay yi leerul nañ ne ko ab naafeq nga wan ko naka la yàlla wanee ne ab naafeq la naka la yàlla waxee ne naka la yàlla saxalee ne ab naafeq la mu jeex ku wax na téere bi yàlla faram-fàccewu ko kooku dafa weddi yàlla ndax yàlla su ne nàngam gii dañu koo nàngam nit ñëw ne kenn nàngamu ko kooku weddi na yàlla yàlla su ne maa naa fil kitaabi min shay'in donte ñoom lañ cee teg noonu yëpp wane nañ ne loolu ay teguwul fenn ay wax yu teguwul fen la yàlla su ne moom téere bi bàyyiwu ci dara te téere bi moom di ak ginde kon lu aju ci ginde gi yàlla bàyyiwu ci dara ñoom suñ ñëwee ne am na lu ca yàlla bàyyi weddi nañ yàlla yàlla su waxee ne téere bi ab leeral la ngir bépp mbir ci آه، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء تبير آية 1689 يالا نتيري بي يالا وحي ننتبي نكو واتشي ننشي وتيري بي مي أبلير الانجير بي بمبير وقم نتيري بي أمنا لو خمنا ليري وفا ويدينا يالا كون نيوم سنيوي ويدي وخني ناي لير <laughs> كيبكو ويدي سنة ويدينا القرآن القرآن loolu ay caaxaan la parce que dama leen wax ne seen sunna soosa ngeen di wax dadul dëgg xam nga loolu moo gën a yomb xam nga xam nga wax day leer ñun li ñuy wax waxuñ ko di sànni dañuy indi ay aaya alquran tegal leen ay aaya alquran wan leen ne leen lu génn téere bi du dëgg te loolu yàllaa ko saxal sànq wax naa fi ay aaya ci sootu sajjida mi surat 32 verset ya ca njëkk ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق ما نم تيري بي موي دق جي نيكول تيري بي أك سنة ديريت تيري بي موي دق جي تيري بي موي دق جي waa ñun dëgg gi dañuy wër ñun gis nañ dëgg gi di mooy téere bi kon lu ñuy yàlla waxaat yonent bi ne ko ci suurat surat 35 suratu fatir ay 31 na kenn ku ci ne dem vérifier ko su may wax nag wax ma sax muslim muslim ñoom yeewu nañ ci lii de li kay xanaa seen taaliba ya bëgg a yeewu bëgg a dënc lañ newoon ñu leen di wutatee ñoom te ay taaliba la ñuy am nag de comme ni ko gars yi di amee nii ci tarixa yi ñu leen di sikk loolu lañ am noonu lañ amee it ay sëriñ te ñoo ëpp sëriñ sax gars ci tarixa yi seen taaliba yi ñuy seen taalibe yooyu ñoo tax ñuy wax seen taalibe yooyu nañ dem vérifier référence yii nañ dem vérifier référence yii gisal seen bopp ne yàlla moom lii la wax yonent bi yàlla nag li mu wax yonent bi su ko waxee ba noppi ay nit ñëw bëgg leen a téye bëgg a fatt seeni xel di leen gëmloo leneen yàlla lim leen digal mooy ngeen jëfandikoo seeni xel de su ngeen ko deful di ngeen ko layoo ëllëg kon lii amul lu ngeen ciy daw dem leen vérifier seen bopp alxuraan lu leer la ku wax na leerut weddi na yàlla ku wax na leerut naaféq la alxuraan yàlla da ko détaillé ku wax na yàlla détaillé wu ko weddi na yàlla alxuraan ab leeral la ngir bépp mbir képp ku wax ne du ab leeral ngir bépp mbir weddi na yàlla su fekkee na nag ñoom weddi gi ñuy weddi yàlla da ngeen cee ànd ak ñoom di weddi yàlla su ëllëgee loolu seen responsabilité personnel la yoonu kenn newu ca l' essentiel ñun lañu war a wax wax nañ ko su ëllëgee dañuy doon seede contre yéen rek lii de waxoon nañ ko waxoon nañ ay joxe woon nañ référence yi mu doon lu leer seen xadis yooyu ñu ñu tudd déjà sunna si wax nañ ko ci débat ba sax wax nañ ko fa seen waa ji sori wu ca lu tax du ca sori. lu tax yéen su ñuy wax ci seen sunna soosa du ngeen ca sori seen sunna si wax nañ leen dañ koy wax ouvertement wéerul wéerul amul benn delluwaay ci téere yàlla xanaa lu amee noonu sul li xanaa lu amee noonu solo ba nit ki sax maanaam ñu naan soo soo weddee loolu weddi nga alxuraan xanaa kon yàlla ma saxal alxuraan war naa mën a saxal sunna soosu sunna soosu saxul amul fenn fu mu sax saxul kenn mun laa indil aaya bu ko saxal yéen kay yéen ba ngeen xamee ne seen sunna si sax na surtout waa kuréel gii ak beneen kuréel bu mu mën a doon ñi nga xam ne jot naa fee def ak ñoom débat sujet bi li muy doon ndax diina dafa am beneen delluwaay bu dul alxuraan amul kenn ci ñoom di wuté saxal sunna ci indi ay ay alquran ne sunna soosa lay saxal amul ku ci ñëw wara saxal sunna nga xamne loolu moo taxa ñëw yow dang ko fay romb di poser ay question dang ko fay romb di poser ay question mais yow kay indil ay ay yi saxal ne sa sunna ci saxna kem man ni may indee ay aya di wone ne ludul alquran saxul ci diine ludul alquran saxul ci diine da bay indi ay aya yu koy wone mais yéen kay indi leen ay aay yii wane ne alquran ak sunna moo sax ci di ko layal ni ma koy indee mu leer nañ indi ay aaya yoo xam ne alquran képp la saxal ci diine yàlla ne yonent bi alquran képp la doon tari mu jëm ci nit ñi ay aaya yàlla képp la doon tari mu jëm ci nit ñi la de du sama wax ay aaya laay indi di ko teg waaye noonu ma koy defee ci ñaata débat lan moo tax ba yéen mënu leen koo def da ngeen di ñëw war a défendre li ngeen wax ne loolu mënul ñàkk ci diine ji te du ngeen ko def dangeen di ñëw di poser ay questions te comme li may wax fii comme ki ma doon wax noonu sànq su ne hadis alquran ak hadis ma ne kii li muy wax moo ko tey ndax su ma ko waxoon léegi hadisu ñan lan na may tontu hadisu ñan mooy lan léegi hadis yooyu ngeen may wax yéen man may leen ndax loolu hadisu yi ngeen may wax wala hadisu yi ndax yéen am ngeen seeni xadis di yéen sunni di chiite yi ñoom am nañ seeni xadis yéen am ngeen seeni xadis chiite yi am seeni xadis kon su ngeen di woote ci ay xadiis yan xadis ci ngeen di woote xadisu sunnit yi yeeg yu chiite yi wala xadisu sunnit yi rek te xam naa ne sunnit yi moom duñu woote mukk ci xadisu chiite yi ndax ñoom jàpp nañ ne chiite yi neewuñ ca lenn te man wax naa ko fi depuis deux mille dix-huit su dee ci wàllu pratique ba ci si su dee ci wàllu pratique li nga xam ne moom la yàlla di jàngale damay wax ne chiites yi ñoo gën a honnête te lool c'est un fait te loolu c'est un fait ndax su fekkee ne ci wàllu pratique chiites yi ñoo leen gën a jege alxuraan ci wàllu pratique chiites yi ñoo leen gën a jege alxuraan maanaam ñii. ñoom maanaam faaw nit di gëstu pour mën leen a xam ñii nii mooy ni ñuy tuddee sunnite yi faaw nit di gëstu pour mën leen a xam ils sont tellement malhonnêtes et ils sont tellement dans la manipulation que faaw nit ki di gëstu pour mën koo xam faaw nit ki di gëstu pour mën koo xam malheureusement suñ su ngeen ñëwee suñ dëkk yi nit ñi presque toppe gi ñuy toppe toppe aada la mais du toppe goo xam ne dañoo gëstu ba pare doog a topp moo tax nit ñi di wut a défendre njàngaleem ahlu na wal jamaa mais njàngale moo xam ne la soo demoon di gëstu rek même soo demoon ci wàllu histoire ngay dem ci référence chiite yeeg sunnite yi yow di nga gis laa différence li ñuy jàngale ak nañ koy jàngale yow soo demoon ci alquran di ko bàyyi xel da ngay gis bu baax ñoom seen xeetu jàngale ni mu oyofe ak it maanaam ni mu teeraa teeree ni mu oyofee ni mu yombee weddi ndax ñàkk sax gi mu ñàkk sax te mu leer nañ na saxut waaye comme tamit ba tey li waajoo ju doon wax naan ñoom dañoo wax ne hadis yi mooy li ci cheytaan dugal mais loolu kay c'est clair loolu loolu kay c'est clair ndax wax na maam su fekkee yow comme par exemple ñoom li ñuy wax naan maanaam ku weddi xadis yi da ngay weddi alquran ku weddi sunna da ngay weddi alquran mais dama ne yéen yéen da ngeen am jafe-jafe yéen loolu démb rek am na benn ci euh, réaction bu ñu doon def ci débat boobu loolu ñoo ngi ko ciy wax man yëguma woon na sax ñoom dañ doon def lii parce que en réalité man damay ni wax na leen su ngeen waxee ne nit ki soo weddee sunna soo suñuy askan la yonent bi da ngay weddi alxuraan may maa ngi leen yéen da ngeen di nelaw xanaa soo waxee ne soo weddee sunna soo suñu askan la yonent bi da ngay weddi alxuraan mais question bi ñu war a posé loolu mooy yéen ku leen maanaam ñun kat moo ñu gëmloo sunna soo suñu askan la yonent bi ba pare. sunna soo xam ne amul benn trace ci alxuraan ñu ne la soo weddee liñ la gëmloo di alxuraan léegi ñu ne la yow soo maanaam soo weddee sunna soosu nga xam ne kenn gëmloo wu ko. comme loolu ñooy la yow soo weddee sunna soosu nga xam ne kenn gëmloowu la ko da ngay weddee alxuraan giñ la gëmloo loolu ay caaxaan la loolu sunna soosu kenn gëmloowuñu ko xam nga nit luñ la gëmloowul soo ko gëmul kenn du wax ne da koo weddi di luñ la gëmloowul soo ko gëmul kenn du wax ne da koo weddi da nga koo gëmul parce que gëmloowuñ la ko yow ki lay wa yow ki lay gëmloo di la weddiloo dalaa gëmloowul lii sunna soose yàlla mi nga xam ne ñun muslim yi moo ñuy gëmloo di ñuy weddiloo mais yàlla dañoo gëmloowul sunna soose da koo tuddut sax tudd ko defu ci sax allusion yàlla la ko ñor la saxal mooy lii lañu ñu toppaloo lii la ñu gëmloo fa la yem su fekkee ne lii la la gëmloo lii la la toppaloo lu dul loolu lu ci sa yoon ak lu mu mën a doon moo xam sunna lañ koy tuddee moo xam leneen lañ koy tuddee moo xam leneen lañ koy tuddee moo xam luñ ko mën a tuddee gëmloo wuñ la ko point kon sunna soosu ñun dañu koo gëmloo wut luñ ñu gëmloo wul nag ñu ñàkk koo gëm yéen ngeen ne loolu ñu leen gëmloo wul ngeen ñàkk koo gëm su ngeen ko weddee ñun weddee wuñ ko dañ koo gëmut su fekkoon ne léegi dañ ñu koo waroon a fekkoon ne léegi dañ ñu koo gëmloo woon ñu ñàkk koo gëm ngeen di wax ne dañ koo weddi waaye gëmloo wuñ ñu ko bokkul ca lañ ñuy gëmloo gëmuñu ko. yéen bokkul sa lañ leen di gëmloo ngeen gëm ko yéen kay loolu seen domaine la ndax yéen a gëm lu ñu leen gëmloo wut ndax yéen du ngeen ay muslim ay sunnit ngeen seen idéologie loolu ca la bokk yéen ngeen gëm seen idéologie topp ñun gëmuñ seen idéologie xam nga man à chaque fois li ñuy taxaw naan waaw naan man man sama problème foofu la nekk ñun ak yéen bokkuñ li ñu nekk loolu c'est très claire ñun ci islam kese la ñu nekk. yéen ci ab idéologie bu tudd ahlu sunna wal jamaa ci ngeen nekk waaye lan moo tax sa ngeen di ñëw sa di a wax ak ñun man loolu moo gën a jaaxal bokkuñ ci li ñu ne loolu même 2018 bi may wax ci julli wax naa ko loolu wax naa ko ci ma may na waa man lan mooy yéem sax man li ma yéem mooy lan moo tax ñun suñuy wax ci julli sa yéen ngeen ciy wax te yéen ngeen ay sunit du ngeen ay muslim ay sunit ngeen ñun ay muslim lañ kon bokkuñ sax liñ nekk kon lan moo tax ñun suñuy wax ci li ñu yàlla jàngal li ñu yàlla gëmloo li ñu yàlla toppaloo yéen ngeen ñëw di ci wax ak ñun xamu leen li ngeen wax ak ñun ci loolu parce que bokkuñ lu ñu gëm bokkuñ lu ñu nekk bokkuñ sax lu ñuy tuddoo ñun ay muslim lañ ci islaam kese lañ nekk yéen ci benn idéologie bi ñuy wax ahlu sunna wal jamaa ngeen nekk mais yéen assumé leen li ngeen nekk ngeen dund ko ñun li ñu nekk ñoo ngi koy assumer te dawuñ ci dara ragaluñ ci dara yàlla gëmloo wuñu ci diine lu dul ab téeréem topploo wuñu ci diine lu dul ab téeréem muy diine moom bokkut ak yéen seen diine yéen seen diine yéen a ngi gëm leneen yéen a ngi topp leneen mais leneen la ngeen di gëm ak leneen la ngeen topp ko yéen seen problème la du suñ problème ñun kon ñun yàlla gëmloo wuñu na soosu gëmuñ ko loolu tegtale wut na dañ koo weddi parce que su balaa ngeen di mën a wax ne dañ koo weddi dafa waroon a fekk ñu gëmloo ñu ko mais gëmloo wuñu ko gëmloo wuñu ko gëmuñ ko ngeen ne dañ koo dañ koo gëmut parce que gëmloo wuñu ko hadith yooyu ngeen di wax it la même chose wax naa ko ci débat bi. yàlla dafa gëmloo wut ki gëm beneen xadis bu dul xadisam moom kon xadis yooyu yéen ngeen di wax ci seen six livres canoniques yi comme ni catholique yi amee ay quatre livres canoniques yéen ngeen am seen six livres canoniques te noonu ngeen amee seen livre di ci jàngale ay xadis noonu la chiite amee seen livre ñoom di ci jàngale ñoom ci seeni xadis yàlla gëmloo wu ñu xadis yooya ay xadisam la ñu gëmloo ñun ñu gëm ay xadisam yem ci ngeen ne suñu weddee seen xadis yooyu dañuy weddi alxuraan ñun alxuraan dañu koo gëmloo ñu gëm ko seen xadis yooyu gëmloo wuñ ñu ko suñu yoon newu ca seen sunna soosa gëmloo wuñ ñu ko suñu yoon newu ca xanaa lii moom leer na yaakaar na ah waaw léegi kay yéen toppatoo leen la yéen maam yi yéen a gëm lu leen yàlla gëmloowul te yéen sax yàlla moom gëmu leen ko parce que problème bi mooy weddi waxu yàlla. moo gën a yomb ci yéen weddi wax ya ñuy wax ci seen téere yooyu fi mu toll nii yàlla su ne téere bi leen na da ngeen di ñëw ne leerul parce que seeni téere ay nit ñoo ne leerul yàlla su ne téere bi dañ koo faram-fàcce da ngeen gëm na yàlla faram téere bi faram-fàcce wuñ ko parce que ay nit ñoo ko wax ngeen gëm ko mais li yàlla wax gëmu leen ko kon yéen seen yoon newul ci yàlla ñun nag yàlla mooy suñu kilifa fi ñu yem loo fa la ñuy yem lu ñu gëm loo la gëm foofu la yem la seytaane di dugal ci mbir yi mooy seen xaddiis yooyu ak seen sunna soosa dafa am ñu ko tax a jóg ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والخاسية قلوبهم شيطان لغا خامن موم لاي دوغال سي مبيري داي دون اك فير غير نيغا خامن سين خول دا فا فيبر اك سين خول واو كون كون لو كوكو دون واخ نان حديث ياغنا في نانغام دا فا ام لوم خامول شيطان لولو اك فيرم لا فيرم غوغو نك امنا ньо خامن دا لين جي ورا جاب موي ني نيك سي ني دي جي ووتو ووتو كو سي يالا ديمبالول با نغا جوك سي بلا نغا دي دنگ كو ريتو ak kum mën a doon te loolu mu ngi nekk ci surat 22 ay 53 mooy la seytaane di dugal ci mbir yi la ko tax a jug ba tey tamit su ngeen demee surat 6 verset 112 yàlla wax ne wa kadalika jaalna li kulli nabiin aduwan shayatin al insi wal jinn yuuxi baaduhum ila baadin zuxrufa al xawlu gururan walaw shaa rabbuka ma faaluuhu fa zarhum wa ma yaftaruun loolu nga xam ne moom la borom bi wax ci surat 22 ay 52 53 loolu yàlla dafa ñëwaat fii di ko leeral ci surat 6 ay 112 113 nga xam ne la seytaane ak i gaayam di dugal ci mbir yi te ñooñu lañuy tuddee ñoom ay boromi xam-xam de ñooñu la ñuy tuddee boromi xam ñooñu shayatin yooyu ñoom moom la ñuy tuddee ay boromi xam-xam yàlla wax ne ñoom lañ cay dugal la ñuy sos noonu di ko dugal ci mbir yi yàlla yonentibi la ko waxon walaw shaa rabbuka ma faaluhu loolu la yàlla waxon yonentibi su sobon yàlla sa borom duñ ko def moy sos yoy ñuy sos yàlla dafa waxoon su sobon yàlla sa borom duñ ko def mu teg lan fa zarhum wa ma yaftarun baye leen ak la sos ndax la sos dafa am lu ko dafa am ñu ko dafa am nit ño xamne sos yoy suñ ñewé ci loolu la taxaw mu teg lan ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون جناغ لا يالا وخنا أفا غير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا خامل يونت بي سي بوبام موم موي واخ لول ناخ موم داي ساكو اب اتكات كودول يالا موم ميغا خامني مو واتي تيري بونو فارام فاتي بي kon yenent bi nga xam ne moom gëm na ne yàlla téere bu ñu faram fàccee la wàcce yéen ñi nga xam ne da ngeen di wax na da ngeen a gëm yenent bi yéen gëmu leen loolu waaw kon nag gars yi wax dëgg yàlla macha allah yéen li may wax bokkuñ liñ nekk ñun ci islaam lañu nekk yàlla wàcce ñu ab téere bu leer bu mu faram-fàcce téere bu nekk ab leeral ngir bépp mbir ci lu ñu soxla ñun ci wàllu diine yéen ngeen gëm ne seen diine lu mat 60 ba 80 pour cent jugeewul ci téere boobu te yonent bi moom diineem yëpp jugee woon ci téere boobu ñun suñu diine yëpp jugee ci téere boobu ndax ñu ak yonent bi ñoo bokk diine ji nekk di islam ñun ak yonent ya jiitu ñoo bokk diine ji ñu nekk di islam ñoo bokk li ñu nekk di ay muslim yéen du ngeen ay muslim ay sunnit ngeen yéen a ngi nekk ci idéologie bi ñuy wax ahlu sunna wal jamaa waaw loolu kay yaakaar naa mbir mi leer na nag gaa yi yéen su ngeen tuddoo li ngeen doon jël islam tegee ko de côté ndax bokku leen ca nekku leen ca mais ñun kay amuñoo yéen benn problème dinañ leeralal nit ñi xamal leen na kat loolu ab idéologie la de ahlu sunna wal jamaa la du islaam comme niñ koy defee jamono bu ne di wane ne islaam ak li ngeen nekk ça fait loolu rek la parce que su ngeen di woo nit ñi ci ay xadis yan xadis ngeen leen di woo xadis sunniti ah, léegi xadis siiti léegi xadis siiti lu ngeen ca wax. su ngeen di woo ay nit ci ay sunna ban sunna yéen la ngeen di tuddee sunna la wér ca yéen wala sunna sa nga xam ne moo wër ci chiit yi moom ngeen di wax seen sunna yooyu daa saxul yàlla saxalu ko wax ah, comme yàlla saxalu ko nag gaa yi li lu ngeen bëgg ñun ñun lu ñu yàlla gëm loowul ñu gëm ko loolu ngeen bëgg bàyyi leen seen caaxaani kon soo leen waxee nay leer maanaam ku weddi ma ku weddi sunna weddi nga alxuraan loolu wax leen ko ñi gëm li ngeen gëm da ngeen di wax ne yéen sunnit yi nay leer ci yéen sunnit yi ku weddi sunna ci yéen sunnit yi weddi nga alxuraan waaw loolu wax leen ko sunnit yi parce que ñoom dañoo war a gëm alxuraan ak sunna ñoom dañoo war a gëm alxuraan ak sunna waaye ñun muslim yi ñun alxuraan rek lañ ñu gëm loo ñun téere bi yàlla rek lañ ñu topp loo yonent bi ci boppam. téere bi yàlla rek la top topp nenen. leneen yonent bi ci boppam téere bi yalla rek la don top lolou yonent bi daan top. ñun dañ koy roy ñun ñoko roy sa deug deug ñun ñi nga xamne top. lam don top rek lañ ñi top waaw ah, kon wax yalla ma sha allah non la demee seeni audio nak wax deug yalla man limay wax man seeni wax mom képp kuma ma xam man kuma ma xam xamne deglu seeni wax luma ma lol la te ndax da ngeen dul wax wax yu tegu way bokkaale yàlla ay maanaam seen wax yëpp presque xeet yooyu la loolu ñu ma xam ñoo xam nañ te loolu ça ne date pas loolu mën naa ne wax dëpp ay at mën naa wax depuis 2017 damay wax loolu seeni wax dama koo tële débat yi nii may def nii su ma dégloo su su may su ngeen wax yenn wax yi sax maanaam comme débat la moo tax may moo tax sax may bàyyi xel ngir di mën a tontu. mais seeni wax ci boppam moo teguwul fenn ay wax yu teera teer yu teguwul fenn yu te yoo xam ne teguwul fenn ngeen di wax moo tax man seeni ojo soxla ma ko déglu kii man seen titre bi rek ci laa yem waaw mais lii ab leeral la boo xam ne dafa jëm ci ñi nga xam ne ñoo gëm ñoom li ñuy wax nii ñu bàyyi xel ñun lii ñu wax parce que seen nit ñi bëgg a yeewu fi mu toll nii wala ñuy yeewu sax laa wax ñoom dañuy wutatee di wax yi naan nay leer dañuy caaxaan nay leer ñii dañuy caaxaan macha allah sant yàlla jërë ngeen jëf asalaamaaleykum